أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل الرضوان والتمكين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangul nu lépp loo xam ne jëf nañ ko ci koor bi sunuy koor ak sunuy naafila ak sunu jëf yu sell yépp sunu borom nangul na ko ci barkeb weer wu tedd wi ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi saaxibul fadila cheikh muhammadul muntaqa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu bàyyi ko fi lool may ko ak wér gu mat sëkk te bàyyi ko tawféex ba mott di mébét yi nga xam ne am na ko ci yoon wi am na ko ci diine yi ñu ngi yeesal sunu nuyoo it jëmale ko ci daayira muqaddamatul xidma bi nga xam ne mooy saytu jumaa ji te it di ko sant bu baax ci yi nga xam ne ci koor gi mi ngi koy waajal ci ay ndogu yuñ mën a ndogu defaree biir waaye yuñ mën a defaree xol daal yépp ñu ngi koy ñu ngi koy waajal ci jumaa ji di ko fi defee defin wu tedd defin wu rafet te muy waxtaan yoo dimbale nit ñi ci xamal leen seen diine xamal leen dara ci seen àdduna waaye dana leen dimbale it ci ñu dundal seeni waxtu yu cher yi nga xam ne ci lañ toll ñu dundal ko ci luy luy dolli seen yoolu koor te fegal leen majaalisu shaqaawa jataa yu texee di yi nga xam ne mën naa am ku néew ci bii ne ca bee kon boobu it dana leen fegal jataay yooyu ba jataay yi ñu nekk lu leen di jëriñ la ci àdduna lu leen di jëriñ ci alaxira di leen dolli seen jool ci koor gi comme ni ko sëriñ Fallu Mbàkke waxee nag sunu waxtaanu tey mi ngi jëm ci mawdo boo xam ne mën naa am jaaroon na fi ci at yi jàll jaaroon na fi ci at yi jàll muy amraadul qulub wa turuqu ilaajiha mooy mooy mooy tawati xol yi ak yoon yi ñuy jaar ba mën leen a faj tawati xol yi ak yoon yi ñuy jaar ba mën leen a faj jaaroon na fi waaye li tax ñu delloo siwaat ko mooy rek lii Sëriñ Fall wax léegi am solo gum am solo ak dugg gum dugg ci mboolem jëf yi nga xam ne ñu ngi koy jëf mboolem jaamu yàlla yi ñuy jëf Maodo tey bii da caa am solo lool ndax bu dee julle bu dee woor bu dee aj màkk bu dee leneen jëf ju baax ju ne la koy tax a sell mooy mu dugg ci xol bu sell la koy tax a sell am njariñ mooy day dugg ci xol bu sell bu mucc ayib ci yi ñu bëgg a waxtaane kon loolu rek waroon naa tax ñu waxtaane ko beneen ba ci des mooy dafa nekk tomb boo xam ne dafa mel ni yàlla daf cee natt nit ñi mu tasaaroo lool ba mel ni ku ci mucc bariwul te def tasaaroo lool la def te it muy tomb boo xam ne mën naa yàq diggante nit ki ak boroomam waaye mën naa yàq diggante nit ki ak moroomam te ñaar ñooñu rek moo fi nekk sa diggante ak sa boroom sa diggante ak sa moroom te yii jàngoro ñuy bëgg a waxtaanee comme nekk ci yow mën naa yàq sa diggante ak sa borom mën naa yàq sa diggante ak sa morom bi ci des ci mujj mooy mott li la ci waxtaan yi ci defoon ci jamono at yi passé doon nañ ko waxtaanee waaye dafa mel ni waxtu bi da doon xat ba li ëpp ci waxtaan yi du mat na mu war a mate sabab yooyu yëpp nag tax na ñi nga xam ne ñooy saytu mbirum waxtaan yi gis ne mën nañ ko delloosiwaat tomb boobu ngir nit ñi mën cee gën a jariñu ngir ñu ci mën ci gën a tabax seen seen jëf ndax jëf yépp ci lay ci lay taxaw waaye niñ koy jot jotle bii nag dañoo sàkkun ñu ne nañ koy gën a jëmale ci mbindum sëñ bi te gàttal ko jëmale ko ci mbindum sëñ bi ndax ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu mawdoo bu ne wax na ca ci diine mawdoo bu ne ci diine rek am na lu mu ca wax waaye mawdoo bii nag wax na ci loo xam ne bariwul nu mu ko teqalee nii mu ko teqalee ci mawdo bii boo dee jàng xasida yépp wala xasida yi nga xam ne mawdu bi ma nga ca doo ca gis mu teqalee ko ni mu teqalee bii mawdu mawdu bii ni mu ko teqalee ci biir xasida yi bariwut lu mu koy teqalee ay mawdu ndax boo demee ci masaalikul jinaan fekk ko fa boo demee ci maxaaliqul niiraan fekk ko fa boo demee ci munawiru sudur fekk ko fa boo demee ci wasaayaa yi muy dénkaane yi muy dénkaane ak laabiri yi muy laabiri yépp yi du ci bari boo ca demee da nga fa fekk mawdu bi wala tomb bi mu di ko waxtaanee di ko di ca soññee bu baax a baax a baax a baax ndaxte loolu li muy tegtale mooy ittigoo gum ko ittiwoo ak jàppee gum ko jàppee ne islaax bi muy def maa defar bi mu ñëw ngir defar nit ñi ab tàmbuleem wala xaaya ba mooy alqalb mooy xaayab tarbiya tarbiya du dara lu may kuy jàpp nit di ko defar xolam ba mu sell ba mën a bokk ci al rabaniyun loolu rek mooy mooy mooy mooy tarbiya tarbiya boobu nag dafa taxaw ci tasawuf suñ tubaab tarbiyaam ci tasawuf la taxaw tasawuf boobu mu taxaw it xaayaam mooy defar xol tarbiya defar xol rek mooy xaayaam amul beneen xaaya amul beneen jubluwaay bu dul defar xol xol boobu nag ban solo la am ci diine ban solo la am ci diine diine mooy loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko xàll aw yoon la moom xàll la woo xam ne suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam la ko wàcce ci moom mu bàyyi ko ci yàlla jëm ci ñu ñépp ci jamono ju ne ak ci barab bu ne jamono ju ne ak ci barab bu ne lu tax mu ñëw ngir jubal leen ci lépp loo xam ne seen defaruk àdduna ma nga ca seen defaruk alaxira ma nga ca laa rayba fiihi hudan hudan lil muttaqin alxuraan loolu rek la hudan lil muttaqin ak njub rek la kon diine mooy loolu li sunu borom wàcce ci sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ci lépp lim soxla ci lim digleeg lim tere bu ko nit ñu toppee mu nekk ak njub ci ñoom goo xam ne danañ mucc àdduna danañ mucc alaxira loolu mooy diine waaye diine jooju nag dafa ñetti xaaj la borom diine ji da ko xaaj ñetti xaaj muy al iman wal islam wal ihsan liimaan mooy li fasoo ci xol bi li ne ci xol bi nga xam ne mooy fondement bi waaye l'islam mooy yi nga xam ne moom ngay jëfandikoo sa diggante sa borom jaamu yàlla yi yàlla gannaaw boo ko gëmee jàpp ne mooy yàlla ba noppi nag day war nag ci yow ngay waaj nga jaamu ko ku am borom da nga koy jaamu noo koy jaamoo nag julli yaag woor yaag aj makka yaag saraxe yaag topp waajur yaag yépp yépp jëf ju baax nañ lañ koy defee nag l'islam moo la koy jàngal waaye ñetteel ba rek mooy lixsaan moo lay jàngal yooyu yëpp soo ko defee nag noo koy sellalee boole ko ak jikko yu tedd yi nga xam ne moo ko war a moo ko war a ànd ak moom moom Sëriñ Tuubaa di wax ci tasawut subaan wantabihu fi anna diin allahi xam aqsaamuhu jiimun bi lastibaahi yéen ñëpp da ngeen xam ne diine ñetti xaaj la awaluha al imaanu wal islaamu baadahuma al ixsaanu laa tanaamu bu njëkk ba mooy liimaan ba ci teg mooy lislaam ba ci teg mooy lixsaan noonu la ko waxee lixsaan boobu ñu wax nag moom la ñuy tuddee tasawuf lixsaan dëgg-dëgg mooy tasawuf rek te tasawuf li ma waxoon léegi nag raayaam jubluwaayam dëgg dëgg dëgg bu ñu ko nattee mooy rek defar ab xol sellal ko ci jàngoro yi def ci jikko yu kat yi ak taxliyatu wa taxliya taxliyatu alqalbi min arrazail wa tax wa taxliyatu alqalbi bil fadail xol bi nga génn ci lépp lu bon raxas ko ba mu set wecc nga duy ci ba mu fees dell ay jikko yu tedd ay jikko yu baax loolu rek mooy tasawuf loolu rek mooy jubluwaayam taxir fuaadaka min arrazaili wa xallihi bi afdali alfadaili soo demee ci basaalikul jinaan gën na faa leer sëriñ bi maanaam li ñuy li li ñuy wax mooy bindu tay bi ay téere sëriñ bi rek lañ dajale lu mu wax ci mawdu bi ay téere sëriñ bi rek ñu ngi ci téere bi keneen waaye li sëriñ bi wax rek moom ndax sëriñ bi dafa nekk koo xam ne ku yéemu la ci yot yot mbari ndax mawdu bi ni mu ko mu'alaja ni mu ko ni mu ko ni mu ko ni mu ko ni mu ko jëlee teqalee ko noonu tafsil ko xamal la lan mooy tàngoro yi lan moo koy saafara lan moo koy waral lépp mu dugal ko ci biir téere yi loolu bëriwut ab téere boo xam ne da nga dem fekk ko ci noonu te noonu noonu la nekk ci biir téere yi boo demee ci Masaalikul Jinaan ma ngi koy xam ne tasawuf borom xam-xam yëpp dañoo wuute ci tasawuf mooy lan dañ waxee seen wax ba pare wax ne am na ñoo xam ne nee nañ mën na junniy wax xam ne junniy wax tasaaroo na lool ku ne na diile ku ne na diile ba mu mat junni wala mu ëpp ko sax waaye sëñ bi moom ba mu ñëwee da koo résumé lépp ci wal xaasilu suufi yu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan wala mi te soofu daal bu ngeen ko bëggee xam dëgg-dëgg mooy borom xam-xam bu am xam-xam tey jëfee xam-xamam borom xam-xam buy jëfee xam-xamam loolu ñaari baat yu tuuti la waaye mën naa ëmb lépp mën naa ëmb lépp borom xam-xam bu buy jëfee xam-xamam waaye bu jëfee xam-xam bu amee xam-xam jëfee xam-xamam lu mu koy jural nag loolu mooy mooy dëgg-dëgg mbir ma fa saara saafiyan min al akdaari munqati mumtali al qalbi min al afkaar su jëfandikoo xam-xam ba am na ko jëfandikoo na ko bu mu sellee day mujj nag mu sellal xolam ba génn ci mboolem jikko yu bari muy jikko yu bari li ñu bëgg a waxtaane nit ki am xam-xam jëfee ko yooyu day génn ci xolam saafiya min aktaari maanaam ak taxliya mu génn ci xolam jikko yu bari lu mu cay def mumtali al qalbi min al afkaari jikko yu baax yépp it mu dugal ko ci kon bay yooyu boole na ak taxliya wa taxliya sangu setal ndab li ba mu set dëkk nga fab nag ñam bi ngay fab daal di ko doon def ci biir mu doon nekk mu mën a jëriñu kon looloo tax xol am solo lool ci diini waaye am solo lool ci jumtukaay yi nga xam ne wootekat yi dañ koy woote dañ koy jëfandikoo bokk na ci li koy amal solo nag moom xol li tax ñu utiwoo ko noonu mooy mooy loo xam ne ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee su baaxee rek lépp baax waaye su bonee lépp bon xol su baaxee lépp baax su bonee lépp bon inna fi ljasadi mudqa ida salaxa salaxa aljasadu kullu wa ida fasada fasada aljasadu kullu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko mooy lan mu ne mooy xol su baaxee lépp baax waaye su bonee lépp bon kon mooy li ñu waxoon ci gannaaw ne ci la lépp aju ci la lépp lalu Cheikhul Xadim gën koo leeral ne nit ci Munawwir Sudur boo ci demee mu ne alqalbu kal maliki fil a'daa xol daal dafa mel ni buur ci cër yi xol mooy buurub cër yi mahama yemil tamit ma abtidaay fu mu jëm rek mu xol bi jëm cër yi jëm cër yëpp loxo yeeg tànk yeeg yëpp ak bët yi fu xol jëm rek foofu la ñuy jëm xol moo leen di guidé day mel ni ab ab ab ab ab télé ki guidance la bu ko yor nga xam ne foo ko bësee mu génn dara noonu la xol mel ci biir seen yi ñëpp moo leen di orienté kon la in turid islaaha awsaalin maa li wa ci man liya ida yaqamaa fa aslih alqalba bila tadlis xatta tura billahi za tadlis nee na kon na nga fexe ba sa xol nga defar ko yow bala nga ittéewoo leneen ittéewoo defar sa xol ba mu sell te defar xol mooy lan génn ci jikko yu bon yii ñu bëgg a tudd dugal ci jikko yu baax yi nga xam ne moom lañ ci war a dugal loolu rek ñoo defar xol te nee na bala nga ittéewoo dara ittéewoo defar sa xol ba noppi ba nga xam ne dootoo gis lenn lu dul yàlla mooy doon sa wéttal moo doon sa lépp saa boo defee loolu rek yow defaru ko ndax bu defaroo leneen li gis lépp defaru ko moo tax mboolem defarkat yi nga xam ne ay nit ñi yoo xam ne dañuy ñëw ñu defar ab société ñoom ñëpp fa ñuy tàmbulee mooy defar xol fa la ñuy tàmbulee ñoom ñëpp bu ñëwee defar xol ci la ñuy tàmbulee buñ ko xoolee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na màkk ba am fa fukki at ak ñett defu fa dara lu may defaree xol rek benn jaamu yàlla da nga fi wàcc wala jaamu yàlla li ëpp wàcc ñu ko waaye li mu doon def mooy defar xol yi raxas ko ba mu sëb lépp mu def ci jikko yu baax yépp door tàbbal nag leen ci def seen xarit radiallahu taala anhu noonu la def bi mu sosee yoon wi njaal bin bi yépp loolu la doon liggéey ci nit ñi di defar seeni xol raxas seeni xol jikko yu bon yi jikko yu ñaaw yi yépp mu génne ko ci ba mu sëb lépp mu door tàbbal nag dugal ci jikko yu yu rafet kon loolu mooy yoonu ñiy defar ñëpp ci la ñuy tàmbalee seen defar ñëpp waaye lan lañ jublu ci xol bu ñuy defar nag xol bi ñuy defar ban la ndax mooy xol bii nekk ci ñun di séddale deret bi ci sunu yaram ñu di ko yëg bu amee jàngoro ñu yóbbu ko ci docteur yi ñu faj ko ndax xol boobu la ñuy wax wala ban xol la ñuy wax su ñuy wax xol fii xol boobu nga xam ne moom lañ war a defar waxuñu xol boobu waaye xol bi ñuy wax mooy xol boo xam ne mbir mi mu yàlla def ci nit kenn ku ne ci mun da nga ko yëg yëg nga ne am na loola tax di gëm am na loola tax a wedd am na loola tax a bëgg am na loola tax a bañ kenn ku ne yëg loolu ci sa bopp te xol boobu moom mooy mooy mooy ki yàlla waxal yàlla bu waxal nit ñi xol boobu lay waxal xol boobu lay yedd xol boobu lay mbugal xol boobu lépp ci xol bi la koy def lépp ci xol bi la ko suñu borom di def ni ko imam Xasali waxee latifa rabbaniya ruxaniya laha bi hada alqalbi jasmani taalluq maanaam lu sew lu lu loo xam ne kenn du ko làmb du ko daj waaye ku ne yëg ko ci sa bopp ku ne yëg ci sa bopp ne am na lu la tax di xam am na lu la tax di bëgg am na lu la tax di bañ am na lu la tax di gëm am na lu la tax di weddi lépp muy yaa ko yëg ci sa xol waaye mënoo gis ne ci yow loolu moom lañ tuddee xol bu ñuy wax saa ba am na ay tur yu bari ñu koy wooyee léeg-léeg ñu naan nafs léeg-léeg ñu naan arruux léeg-léeg ñu naan fuaat léeg-léeg ñu naan damir léeg-léeg ñu naan aql yooyu yëpp ay tur la yu yoo xam ne sori ñu ay maanaa léeg-léeg sax ñu doon benn maanaa mooy lii tax nit ki xam lii tax nit ki gëm lii tax nit ki weddi lii tax nit ki bëgg lii tax nit ki bañ loolu la ñu tuddee xol yi ñu waxtaan yi fii ci jotaay bii turam yu bari yooyu nag dafa dafa bari ab ëlbatiku xol day yëbati nit mën naa xëy gëm yàlla weddi gont weddi waaw nit mën naa xëy bëgg gont bañ wëlbati bu bari googu muy wëlbati moo tax ñu tuddee ko al qalb al qalb mooy luy wëlbati luy wëlbati lu bari wëlbati wa ma summiya al insanu illa li nafsihi wala al qalb illa annahu mutaqallib mutaqallib wala day wëlbati day wëlbati saa bu nekk rek ñu ngi ci biir saa boo xëyee am na loo xëyee ci sa xol loo xam ne gonteewoo boo xëyaatee am na loo xëyewaat loo xam ne doo ko gonteewaat kon wëlbati bu bari boobu moo waral mu mu nekk lu doy waar ba sax ci mel ni bët Cheikh Xadim Allah taala anhu wax nañu ko sama dëbb ci baa yallaahu yaa muqallibal qulub muqallibul qulub qallib qulubana anil uyub yow yàlla yow mii wëlbati xol yi wëlbati sunu xol ba mu mucc ci mboolem ayib yi kon muqallibul qulub mooy yàlla ci loxoom la ne ku di ko wëlbati lu mu ko soobee loolu tax kon ñu tuddee ko alqalb lan mooy xal bu feebar nag xol boobu nga xam ne mooy xam moom la yàlla waxal moom la yàlla bëgg mu baax moom la yàlla bañ mu bon xol boobu day feebar ni yaram di feebar ndax suñu borom moo bind doomu aadama wutal ko ay cër cër bu ne mu wutal ko liggéey tànk bi mu wutal ko liggéey day dox bët yi mu wutal ko liggéey day gis nopp yi mu wutal ko liggéey day dégg naka noonu yeneen cër yi ci des yëpp benn bu ci nekk am nga liggéey booy liggéey lan mooy sa feebar mooy mënatoo lool tànk bu mënatoo dox feebar na loxo bu mënatoo jottaliku feebar na gis bët bu mënatoo di gis feebar nopp bu mënatoo dégg feebar xol tam noonu la mel nag moom saa bu demee ba li ko tax a jóg mënatu ko rek feebar moom yàlla da ko bind jox ko benn mission boo xam ne wala benn fonction boo xam ne moom rek la ko la ko la ko la ko def la moom rek ko mën moo koy def saa bu ko mënatul rek feebar na loolu mooy wasifatuha maarifatullahi wal unsi bihi xam yàlla te wéttalikoo ko nga xam ne sa wéttal yàlla lay doon xam yàlla bu wér wéttalikoo ko bëgg ko di ko jaamu tudd ko di neex ci sa sa sa xol tudd ko di neex ci sa xol loolu lépp gënal li lépp nag xam yàlla ak tudd ko ak bànneexoo ko ak sopp ko ak yaakaar ko loolu nag mooy dëgg dëgg dëgg xol loolu mooy liggéey xol dëgg-dëgg saa bu xol xol defee loolu rek ma nga ca liggéeyam waaye saa bu wuteeg loolu rek ma nga ca safaan ala bi zikrillahi tatma innul qulub tudd yàlla mooy dundal xol tudd yàlla mooy dundal xol kon xol dafa am liggéey ni yeneen cër yi amee liggéey yeneen cër yi bu mënatul seen liggéey dañoo feebar waaye xol it bu mënatul liggéeyam dafa feebar ñu ne kon qalbul marid lii mooy xol bu feebar xol boo xam ne la ko taxoon a jóg yàlla bind ko mënatul loola defatu ko mënatul loola defatu ko wala ma ngi koy def sax waaye na mu koy defee àndut ak lu mu war a doon na mu koy defee àndut ak lu mu war a doon nit koo xam ne moom xolam defatu la ko taxaw a jur defatu ca dara am koo xam ne nag moo tane moom defatul lépp waaye nag mu ngi def nànk-nànk xol bi daal mënatul lépp am na lu mën am na lu mënul bu teyee mu def bu ëllëgee mu bàyyi waaw bu teyee mu bàyyi kon loolu li muy li muy indil mooy dañuy xam ne kon xol ay ay façon xol la ñetti façon xol moo am xol buy dund xol bu dee ak xol bu feebar xol boo xam ne day dund ak xol bu dee ak xol bu feebar xol buy dund mooy ban mooy bi nga xam ne li ko tax ñu bind ko ñu ngi koy def ni mu ko war a def moom mooy xam yàlla boobu bëgg yàlla sopp yàlla li ko li taxoon mu jóg ma ngi koy def nañ nañ ko ko digaleewoon te mu gën a mate loolu mooy xol xolub jullit loolu mooy xolub ab ab jullit te mooy xol ba nga xam ne nag moom la suñu borom soxla xeeti xol yépp bii rek da ci suñu borom soxla yow ma laa yan fa umaalun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim yàlla nee na fa alaxira moom bu ngeen ko ñëwee seen doom yu bari yeeg seen alal yeeg seen fayitum àdduna meeg soxla wu ma ci dara lu ma fa soxla qalbu salim qalbu xay xol buy dund xol boo xam ne la la taxoon ma bind ko ma nga ko doon def na ma ko war a defee loolu rek laa ko soxla xol bu dee mooy ban mooy boo xam ne moom mënatul li mu doon def li ko taxoon a jóg la xol bu buy dund dee doon def ba yàlla gërëm ko moom mënatul ca dara dee na aajis tamaman an ada i wasiifati yi mënatul a def dara dara ci li ko yàlla digal li li ko taxoon yàlla bind leer ak leer du ko tàbbi ak njub du ko tàbbi dafa am li ñuy wax reynul qalbi maanaam day dafa bari bakkaar di tooñ yàlla tooñ yàlla googee di di di di di di feeñ ci xol bi li ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne boo mooyee yàlla mooy yàlla boo mooy da dee am ab tomb bu ñuul bu mu def ci sa xol boo mooyaatee mu defaat beneen tomb bu ñuul boo yowaatee mu def beneen tomb bu ñuul boo mooyaatee mu def beneen tomb bu ñuul tomb yu ñuul yooyu ne bu bëree ba bëri day muur xol ba mu ñuul ñu ne diw saan ndax xol bu bàyyi ñuul ñuul ñuul yooyu ay bakkaar yu bari la ñoo tegaloo tegaloo tegaloo bu àggee ca amatul fenn fu mu teg dara nag muy rey li rey lu xel xol bu xol bu xomaat nga xam ne dara mënu ci ca tàbbi dara mënu ci ca tàbbi moom la suñu borom di wax ne summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal xijaara aw ashaddu xaswa yéen am na ni ñoo xam ne seen xol dafa wow dafa dee ba mel ni doj nee na doj saxaleen tane ndax doj léeg-léeg mu ndox dugg ci biir mu mu toj doj doj dana toj léeg-léeg ngir ñu ne ci biiram xol borom xol bu wow bii nag kenn mënut a dugal ci moom dara dafa fatt benn yoon te bakkaar yu bari moo koy moo koy moo koy fatt loolu mooy xol bu dee mënatul dara ci la ko taxoon a jóg bal tabaa allahu alayha bi kufrihim fala yuminuuna illa qalila yàlla nee na dama tàmpe seen i xol tàmpe tàmpe ku mel noonu loo koy xamee ci biir nit ñi mooy koo xam ne dara lu baax safatu ko diglu alquran safu ko diglu xasida safu ko julli safu ko lépp wala lu mu cay defit da koy def ngir nit ñi rek waaye dara safu ko ci bu romboon fenn ñuy conférence wala ñuy waxtaanee yàlla wala ñuy jàng alxuraan maanaam day yàkkam ci mu àgg bañ dellu ca fama saa bu nit nit saa bu ko loolu daree mais yëg nag xolam dafa feebar xolam dafa dee xolam dafa dee boo xam ne lu baax safatu la te nit ñi ñi kenn ku ne ci noonu xam nga nit koo xam ne noonu la mel saa bu ñuy waxtaanee lu baax rek maanaam bu mënta demit day yàkkamti mu mu àgg ba mu dem day yàkkamti mu àgg ba mu dem bëggatul dara ci lu baax sabatu taba allahu alayha bi kufri fala yuminu illa qalila bu des nag ñun ñun xol bi nga xam ne dafa mucc di dund da mën nañ ko waxtaane nag ci yeneen waxtaan xol bi nga xam ne dafa dee moom jërul waxtaane mooy xol bu yëfër xol bu ñuy waxtaane mooy alqalbul marid xol bi feebar mooy xol bi nga xam ne dafa def ci diggante dund ak dee deewut dund liñ ko digal muy xam yàlla wétti li ko mënu ko ni ko xol bu dund mënee waaye tëlewu ko it ni ko xol bu mu it bu dee tële mu ngi ci diggante bi bay na bay na laa ilaha illa wala ilaha illa tey mu nekk ci lii ba léegi mu nekk ci lii tey mu nekk ci lii ba léegi mu nekk ci lii bu sax fenn suñ ko fajee saafara ko mu daal di yéeg fekk xol biy dund daal bokk ci xol biy dund waaye suñ ko bàyyee sàggane ko bàyyi ko ca lam nekkoon rek mu muur ca muur ca muur ca lu muy def mooy daal daal di fekk si xol bii dee day dee day dee wépp bu ko defee lu lu luy pexe kon mooy xol bu xol bii di feebar lañ war a am soxla fexe ba dindi feebar yii ci moom tam fekk xol bii di dund waaye bañ ko seetaan ba mu fekk xol ba nga xam ne mooy xol bu xol bu dee. borom xam-xam yi dañoo dañoo wax ne li tax feebaru xol bi ñuy waxtaanee jar a fonk lool mooy day feebar bu jafee faj. ndax kim dal da koy réeree du ko xam kenn ci yéen dina man damaa añaan wala damaa rëy wala damaa nangam lam def la añaan lu rëy la waaye du ko nangu day defe ne leneen la keneen nit koy wax waaye moom du ko nangu kon da koy réere feebar nag boo ko réere doo gaaw a faj doo nangu na yow da ngaa feebar waaw nee na su ko nangoo la koy faj dafa méttee métti ba muñ ko yomb garab da koy faj dafa métti ndax mooy bàyyi bànneex yépp wuuteeg say bànneex mooy mooy faj lool mooy faj lool wuute te loolu dafa métti ci bakkan bu mënee mu nit loolu moom bëgg ñu ko mën a mun da koy faj ba ñu ko mën mais su demoon ba yàlla tawféexal ko mu yëg feebaram mën a muñ li koy feebar li koy li koy saafara waaye du gis docteur bu ko faj du gis docteur bu ko faj lu tax ndax docteur yi ñoom dañoo feebar docteur yi wala faj xol dañoo feebar muy ñan mooy nee na mooy xam borom xam-xam yi nee na borom xam-xam yi ñooy docteur yi te ñoom dañoo feebar feebar bii ñuy wax daan dañ ko war a faj ñoom ñoo la gën a feebar nee na nag bu ko defee chronique daal ñu feebar boo xam ne moom kenn du ko mën a faj feebar boo xam ne bu la dalee doo ko xam boo ko xamee doo nangu la koy faj boo nangoo la koy faj doo gis ku la ko fajal kon nag loolu problème bu réer réer waaw boo demee ci Masaalikul Jinaan suñ baa ngi melal borom xam-xam yooyu muy wax naan dañoo feebar xol te mënuñu faj kenn boo demee ci Masaalikul Jinaan foofa gis wa baaduhum wa baaduhum wa baaduhum wa baaduhum yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo ko am ba mel noo xam ne mënatuñu saafara kenn wa baaduhum yamur bil ijtihaadi wa huwa gaafilun ala tamari ñu naan ñu farlu leen farlu leen te ñoom dañoo saggan a saggan bay nelaw te fu ñu toll na ñu saw farlu leen di wax rek wa baaduhum yanha an il isyaani wa huwa fi kulli zamanin jaani borom xam-xam boo xam ne day tere nit ñi mooy yàlla waaye ci mooy yàlla lay dëkk dañ ko gisul rek te fu mu toll rek ñu tere nit ñi mooy yàlla wa yamuru naasa bi ixlaasi bi ixlaasi al amal wa huwa muraain kulla xiinin fi l amal waaw fu mu toll naa nit ñi watandiku naan gisal watandiku naan gisal te moom lépp lu mu def gisal la lépp lu mu def rek gisal la xam nga ku mel noonu dafa feebar moom kon dafa feebar feebar yooyu mënu koo fajal keneen bokkal la war a itteewoo ba noppi door a fajal fajal fajal keneen moo tax mu ne balam nee na bi tamit mu ne walam yusaf qalbahu min al uyub kal kibri wal xeqd wa kasrati sunub moom ñii de li gën a baax ci moom mooy mu sellal xolam ci ayib bi kan yëpp lu mel ni rëy ak kañ ak mbañeel ak bakkaar yu bari mu setal ci boppam ba noppi sangu ba set door a digal keneen ñu def loolu mooy war ganam kon gis nga feebar bu garaaw la boo xam ne docteur bu koy faj dafa jafe docteur bu koy faj dafa jafe feebar rek saa bu docteur bi ya koy faj jafe rek feebar ba mën na yàgg lool mën naa tasaaroo lool moo tax mboolem defarkat yi rek dañuy ittiwoo xol boobu ñoom tërkiis yi def ci seen lépp ba du faatu ba fekk xol bi dee ñu ko bàyyi ba mu faatu rek ñu nga ko ñu nga caa wax ne dañ cee teel a jóg defar ko nag ba mu fekk xol bi dund te bañ a fekk xol bi xol bi dee loolu lépp nag bu ñu ko xamee ñu ne nag waaw léegi xol boobu nga xam ne dafa feebar lan mooy mandarga yi tegtale ne dafa feebar man bu ma amee xol bu feebar man lan lay xamee ne feebar na ndax mbirum biir la xol mbirum biir la yàlla rek xam na ci ne kon ni may xamee mën na nii damaa feebar wala nit ñi ni ñuy xamee mën nii damaa feebar moom it Sëriñ Tuubaa boo ci demee mu wax la ne la bakkaar yu mag yi bakkaar dafa am bu ndaw am bu mag mu ne la bakkaar yu mag yëpp ñaar fukk lañ bakkaar yu mag yi nga xam ne mooy kabairu zunub ñaar fukki bakkaar lañ kabairu zunub bi ishruuna badat amma nuqulukum sahihatun badat nga ne ko mooy yan mu mu ne mu ne ñaar fukk yooyu limut yëpp waaye nee na ñeent am na ci ñeent ci ñaar fukk yooyu yoo xam ne feebaru xol la am na ci ñeent yoo xam ne moom xol a koy def ñaar fukk yooyu kabaar yooyu am na ci ñeent yoo xam ne xol moo koy def nga ne ko mooy yan mu ne kibrun wa ujbun xasadun maa riya muxtasatun bil qalbi baalan fadriya nee na ñeenti yi moom xol moo koy def muy rëy ak naw sa bopp kiñaan ak ngisal nee na ñeenti feebar yi nga moo xam ne moom xol la koy def loxo du ko def tànk du ko def bët du ko def xol moo koy def te saa bu ko defee feebar la saa bu ko defee feebar kon tëkk da ngay da ngay takk ñeenti yooyu moom rëy naw sa bopp kiñaan ngisal ñeenti feebar yi feebar yi xol yaa ngi noonu moom nga war a xam mu daal di tàmbali teqale ko rek wax la lan mooy rëy ci jëkk ne la rëy na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee noonu la ko waxee batrul xaqi wa qamtu naas nit ku rëy orgueil te boppam fu ne nee na mooy lan mooy bañ dëgg xeeb nit ñi rëy mooy bañ dëgg xeeb nit ñi nit ku rëy day bañ dëgg te day xeeb kum dajal xeeb la qul rafu nafsin maa kadmi lxaqi maa taazumin wa qamtuni xalqi noonu ko yonent bi waxee rek noonu la ko waxee noonu ko noonu mu ko waxee yéen ci waxee ko noonu li muy tegtale mooy kon xool kon rëy ñaari façon la nit ki buy rëy ñaari façon rëy lay doon waaw alkibru ala allah mooy rëy goo xam ne moom yàlla nga ko jële yàlla ngay dëkk yow ñu rëy yàlla ngay dëkk muy dëkk yàlla mooy ngay woote woo lenn loo xam ne yàllaa ko jagoo benn melo benn tur boo xam ne yàlla moo ko jagoo nga di ko jagale sa bopp wala nga di ko jagale keneen lu yàlla jagoo comme jaamu jariñ lor dundal dekkal yooyu ay mbir yàlla la moom dong dong dong dong moo ko jagoo kenn wun ko ca fekk ku ko ca fekk rek yaa ngi def al kibru ala allah yaa ngi koy def wala nga naan ma maay seen borom loolu sax amatul léegi am na am na nag ñu koy wax maay seen borom bu ñu ko waxee dañ leen firaw naa ko waxoon waaye am na ay firaw na yi ci jamono ji yoo xam ne ba ay maay seen borom la ñuy wax ndax dañ koy jëf dañuy jëf ci nit ñi li ñu wane ne ñoom seen borom lañ ñu ko waxut ci seen làmmiñ tam loolu day am waaw ñu bari ci yooyu bu ñu wax rek dañu naan firaw na nangam nangam mel ni firaw na rek moo fi defoon ay firaw na dafay bari lool ci jamono ñu ñoo xam ne not na nit ñi ba daanaka seen borom lañ lañ leen di wax maay seen borom ñu ngi leen ko wax ci seen làmmiñ waaye ñu ngi koy jëf ci seen jëfal raw na la ma waxoon ana rabbukumul ala maay seen borom bu gën a kawe Namrud ne ana uhyi wa umiit man damay dundal di dekkal te dundal ak dekkal yàlla rek ko moom rabbu tam borom yàlla rek la moom képp la ñooñu woote woo nañ loolu waaye ba tey jamono mi ngi am mi ngi am am na ñoo xam ne mënuñoo dundal mënuñoo reye waaye danañ def luñ dundal danañ def luy reye ba tey ñu ngi ko def jamono ñu ngi ko def ay nit ñu ñuy tooñ ba ba jural leen ak dee ay nit ñoo xam ne dañ leen di dundal maanaam dañ leen defal lu ñu tax ñu dund ñoom it ñun ñëpp dugg nañ ci biir cadre boobu te yooyu yëpp mbiru yàlla la loo xam ne ku ci laal dara ci biir ak ci bitti bu feeñee ak bu feeñul yëpp yaa ngi bokkale yàlla yaa ngi weddu yàlla yaa ngi dëkk yàlla yaa ngi réer ci kanam yàlla addurru wannafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudan tubaab nee na lor ak njariñ amul kenn ko ko yor yàlla rek ko yor lor ak njëriñ léegi nag bu ñu demee ba ci jamono ngay gis gis koo xam ne daal diwoo ma def nangam wala diwoo ma defal nangam diwoo ma diwoo ma defal nangam mën nga ko wax ala sabili shukr waaye bu fekkee da ngaa defee nit kii rek moo yor sa adduna wala nit kii rek moo moo yàq sa adduna nga gëm loolu mais saa boo ko gëmee rek yaa ngi rëy ci kanam suñu borom ndax durru ak nafu yàlla rek ko moom keneen moom kenn mënta lor kenn kun la yusibana illa ma kataballahu lana kenn mënta dara dara mënta jot nit lu dul lu yàlla bind ci moom loolu rek mën a am kon yooyu ku ko def di woote woo loo xam ne yàllaa ko jagoo yow ci ñi rëy nga bokk wala nga jañ dëgg dëgg ñëw wàcc ci sa kaw nga lànk dëgg ko def dëgg yoo xam ne dafa bàyyi ko ci yàlla wala bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka iblis defoon yàlla digal ko de sujjóotal mu ne déedéet du ma sujjóot ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin maanaam yëkkati na boppam ci kaw aadama nee na aadama man la dugg ci suuf man la dugg ci sawara te sawara mu jël suuf kooku ko wax kan noonu ko sawara mu gën suuf wala foog rek moom waaye la la ko la ko la ko juccee réy ga mooy daa defe ne moo gën aadama mu daal di bañ a sujjóotal aadama daal di bokk ca ñi bañ ak ak dëgg loolu nag comme daal mooy ñaari réer yooyu jaga jagale nit wala jagale sa bopp loo xam ne yàllaa ko moom wala nga gis dëgg mu jugee ci yàlla jugee ci yonte bi nga jañ ko ci ay neen ñaar yooyu ku ko def moom kaafir la ñuy tuddee këf ak kéefër la moom da ngay génn ci lislaam aba wastakbara wa kaana min al kaafirin iblis loolu yàlla wax ba mu bañee rëy nee na bokk na ci yooyu yéefari kon loolu mooy rëy ci suñu borom tabaraka wa taala mu def benn bi mu xamtum naas xamtum naas xeeb nit ñi mooy lan mooy al kibru ala naas mooy ñooy rëy ci kanam nit ñi kaw kanam nit ñi di leen xeeb di wàññi seen daraja di yëkkati ko ci seen kanam kon ne du ko seen morom ndax diwee sama maam wala diwee sama baay wala diwee sama nangam wala nangam wala am naa nangam yooyu ñu nga xam ne du ay nattukaay yépp nga di ci natt sa bopp ba jàpp ne yàlla ñu def ñun moom nag li tax mu bon mooy bu tax a doon ab kéefër waaye mën na laa xëcc ba yóbbu ci ak kéefër ndax lu mu lay xëccee yóbbu ci ak kéefër mooy kii la nuyu ci kanamam ba defe ne yaa ko gën boo dëgg génnee ci moom da nga koy bañ te dëgg gi ci yàlla la génnee ci yàlla yonent bi la génnee waaye génnee ni ci waa ji kon du ma ko nangu su boobaa yaa ngi wet yàlla loolu moo tax rëy googu moom it bon bu njëkk nga moom kéefër bu leer la waaye diine kéefër la goo xam ne mën a jëf la goo xam ne mën a xëcc nit di ko ñodd ba yóbbu ko ci kéefër am na ni ñoo xam ne kenn mën a seeni wax ñu ñoo xam ne waxi diw duñ ko déglu mukk donte ne dafa yàlla nee na yonent bi nee na duñ ko déglu ndax diw la diw ko wax rek nga doo seet wax ji waaye ki ko wax ngay seet nu mu toll ndax sa nawle la ndax sa dara jara waaw nit la daal maa ko gën fa qaalu anuminu li basharayni mislina wa qawmuhuma lana aabidun loolu nag waa Moussa waa waa kër Moussa Firawna waxoon waa kër Firawna loolu waxoon Moussa ak Aruna yàlla ñun duñ leen gëm parce que yéen yéen ñoo yam rek te duñ leen gëm ndax seen nit yi nekk solo yi ñoo leen topp ñun ñi nga xam ne suñuy jaam la ñu dem ba burki de ñun ñëpp ñu bokk gëm kenn kon ñu ngay xeeb ngay xebaat maanaam ñi nga xam ne suñuy jaam la ñun ñoo leen gëm kon ñun dañu war a am suñ buur bopp ñoom ñu am seen buur bopp waaye waruñu bëgg benn bopp parce que rëy fi mu àgg xeet nit fi mu àgg kooku waaye nag mën naa nit yóbbu nit ba yóbbu ko ci kéefër parce que ñooñu yóbbu nañu ci kéefër bañ weddee Moussa nit la Aaroona nit la waaye bañ leen weddee bañ leen weddee weddee nga daal ne xëcc ba ñu yóbbu leen ci kéefër kéefër loolu ay yëfër kon kibru ala Allah wala kibru ala naas benn baaxu ci benn baaxu ci muy nag kon jikko joo xam ne du jar a wattandiku la ci ñaari façon yépp ci ñaari façon yépp foo dem ci alxuraan da nga ko fekk zàmmul kib man a man a man a ñaawlu rëy jikkoy rëy sunu borom da ko ñaawlu ci alxuraan lu bare bare bare bare bare inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin ñu rëy dañ maa jaamu ñu ne dañ tabbi sawar kon ku rëy dañ ne day tabbi sawar moom te tabbi sawar moom yeneen yi ci yëpp nañ ko bàyyi waaye boo xasee tabbi sawar moom jeex na lu bon loo defati loolu moom mu ko yëg doyis lépp tabbi sawar te suñu borom nee na ku rëy dama lay dama lay tabbal sawar ñun su gën ko fedd ni ci beneen addis laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu zarratin min kibr nee na képp ku faatu lu toll ni zarra fepp suuf ni mu tuutee mu gën a tuuti fepp suuf mu tuutee noonu ku mu nekk ci sa xol nga faatuwaale ko nee na day mu la dugal ajal lu toll ni zarra zarra ni mu tuutee waaye nee na koo xam ne faatu nga mu deyaale ci yow doo dem ajal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax Cheikhul Xadim moom it ci basaan ko jëlaan ba tey mu ñëwaat di ñu leeral loolu fal kibru azamu rasaili jamii li annahu yaqdaxu fi diini muti nee na kibru moo yàlla yëpp moo ci yées rëy moo yàlla yëpp moo ci yées dana ko lu tax ndax moom day yàq diini bu tàddee ci yow gis nga li ma waxoon ci gannaaw rëy ci kanam yàlla rëy ci kanam mbindeef mu muy xëccee nit ba dugal ko ci kéefar kon rëy moom li tax mu bon mooy day yàq sa diini te ku sa diini yàq moom si lépp yàqu na leneen lu nekk mën nga koo ñàkk ba mu des diine bu sa diine xasee yàq moom ñàkk nga lépp nee nag day yàq diine wa xayruhu min al bawaaqi in xasal fa innahu yujibu qatxan fi l amal lépp beneen ayib nag bu dul rëy moom day yàq jëf rek mën ngaa jëfaat beneen jëf waaye rëy moom day yàq diine sa diine la yàq moom lii tax nga xam ne bon na dëgg-dëgg moom moo alak iblis huwa alladi ahlaka iblisa allain nausu minhuma bi rabbil alamin iblis ñi nga xam ne moom la ñuy musul bis bu yàlla sàkk kuy jàng di ko musul ku xëy di ko musul nee na iblis defut yàlla dara lu dul rëykat rëykat la def parce que yàlla ne ci sujootal la sama jaam bii mu lànk ne duma ko sujootal ndax maa ko gën waxu la yàqoo maa ko gën jooju rek mu ko yàq képp fa saara xaalikan bi abdillah li oj bi te aldamatilah léegi nag li ma leen doon wax léegi ci Sëñ Tuubaa radiallahu taala anhu li ko taxa am njàngaleem am solo mooy du la andil feebar te andil la saafara ndax ku waxoon rëy ni mu mel nii ak ni mu nàngee nii ba nag baleen rek noonu ñu ngi dem kenn ku ne seet na ko lijjante mu ne la déet kaay ma wax la lu koy saafara luñ sax nga mucc ci dawaahu ilmun bi annama jara takwinuhu min albaraya fi siwa nee na yow nit ki da ngaa war a xam ne yow mi yaag mbooloo mi yépp yéen a bokk menn maam fu ngeen soqi ko yéen a ko bokk ñoom ñëpp yéen a bokk mel na takwiiluhu min al baraya fi siwa ñu soqi ko benn lañ fa aadama kullukum li aadam wa aadam min turaab yéen ñëpp ci aadama ngeen soqi ko waaw antum banu aadama fi ma utliqa wa huwa min tiini turaabi fa xuliqa fa laysa yaa axi tafuuqu axada nee na bul jàpp ne yaa gën kenn yaa kawe kenn bu ko jàpp mukk lu tax li jahli xaatimati amrika xada ndax da nga réere sa sa ëllëg xamoo fooy mujj loolu wala fi wax naan bala ngaa wax na maa gën diw nañ ne démb la woon ala yowmal xiyam bu ñu attee yowmal xiyam ba ñi ñay dem dem fee ñay dem dem fee yow nga bokk ca ña dem fa baax nga mën ne maa gën diw mais nekk ci fa ba boobu rek nga ko mën a wax ay avant loolu moom kenn mu ko di jëxli xaatimati am di ko axda xamu fa wujju waaw ëllëg mais bokk na ci lii tax nga nga xam ne luy bon na tam li koy saafara mooy ngay ngay diglu alxuraan li mu ciy wax hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu ciy wax moom mii di sëñ Tuubaa li mu ciy wax day faral di diglu loolu tëkk yi ñu ciy tëkku nit ñi ba tukk bu ci gën a métti mooy danaa ko tàbbal sawara te dugg ko dugal ajana summa waidullahi fi nafsi alkitab li mutakabirin shadidun bil iqab nee na tëkkub yàlla bu muy tëkku kuréy métti na lool ba képp ku koy xam di ko jàng nee na doo ko def mukk da nga ko waxtaanee bu baax a baax baax kon loolu Cheikhul Xadim wax na ko ci rëy wax na ca leneen sax waaye taawi taawi du ko laaj muy jikko ju mat a wattandiku te muy bu tasaaroo nag ndax li tax bu tasaaroo kenn du ko nangu kenn du ne damaa rëy kenn du ne damaa rëy te li koy faj mooy toroxlu wàcce sa bopp moo des moo koy faj te am na ñoo xam ne mënuñu mu des mënuñu ko mën nañu ko wax ci seen làmmiñ waaye du ko jëf kon jikko ju jar a wattandiku ju jar a sori moom la ñaareel bi mooy yéen yéen sa jëf yéen sa jëf doomu adama day jëf ay jëf yoo xam ne daf koy moomale yàlla waaye saa boo demee ne dem na ba defe ne jëf yooyu dara la sukkandiku ca ba defe ne mën na koo tax a mucc booba ma nga yéen jëfam man kat julli naa man kat woor naa man kat kii naa man kat nangam man kat nangam ba yooyu bari ba nga sukkandiku ci loola ba defe ne loola moo lay tax a mucc booba nag yàqu ko yaa ngi yéen si bopp maylu ila nafsi ma astiazaami laha li nisyaani kisal anaami nee na mooy nga jàng ci sa bopp jàpp ne yow li nga am yaa ko may sa bopp yow li nga am doy naa sukkandiku nga ci fàtte nga yàlla mi la ko may fàtte nga yàlla mi la ko mi la ko may ndax yow da ngaa jullil yàlla da ngaa julli ngir yàlla julliloo yàlla sax waaye da ngaa julli ngir yàlla waaye loo jullee ay loxo ay tànk bopp nopp jëmm bu ma sëpp yoo xam ne da nga dikk fekk ko fi yow yow sa jëm di defoo ci dara lépp yàlla la ko defal nga julli ba noppi nag di daw ci julli boobu nga julli yàlla mi la defal loolu lépp yàlla mi la defal loolu lépp nga defal ko dara ba defee ne def nga dara yow nag ba defee ne def nga dara bu boobaa rek sa jëf yàqu na fala tuzakku anfusakum da nga ko ŋaññee nee na bu leen sellal seen bopp mukk ñu ne ak laa taataqidu innaha barra bu leen foog ne ñu baax ngeen am nga rafet njort rek waaye bul foog ni ko baax la dañ ci am rafet njort rek waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñett ñi nii yoo xam ne day alag nit di ko sànq mooy nay topp sa nay rek doo def dara lu baax doo ko def topp sa bànneex naw sa bopp naw sa bopp wala ko ci wéy ku nekk ci yow rek yaa ngi ne alkane mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi la mi ngi la sonk ndax nee na jaamu yàlla yi mën naa am ñu dem lool waaye nga naw ko rek mu yàqu wala ba taatin ila al ijabi addab mutian duna litiab dana am na mooy mooy yàlla da nga mooy da nga topp yàlla topp yàlla yu bari waaye nga xool ko rek gis gis ca dara rek lépp soppaliku kon lootoo tam dara ndax naw goo ko naw fa saara ahaalikan bi adlillahi nee na soo nawee ko jëf da ngay mujj alku ci maandug yàlla yàlla koy ñu la waaye daa maandu ci féef sa julli bii sa woor bii ngay naw yàlla maandu li muy maandu mooy daf lay seetaan daf naan la yow xamoo sa bopp ndax boo xamoo sa bopp naa la bindal loxo bindal lay tànk bindal la bopp bindal lépp sant góoma ci loolu di ma nawal li ma defal yàlla bu fekkoon ne kuy fayantoo la daf naan la kaay ñu lijjanti loolu ba noppi loolu ma la defal ginnaaw yow boo ma defalee da nga koy yëg kaay na ñu lijjanti li ma la defal man ba xam noo koy fay kon nit ki wutul def dara dara dara ci yàlla ba yéeg ko wala mu doy ci bëtëb wax nañ yi yéem sa bopp ak ngistal dañoo xaw a nuroo waaye ngistal moom mooy bokkaale yàlla ak nit ñi danañ ci ñëw ci kanam nga def dara bokkaale ci yàlla ak keneen nee na yéem sa bopp nag mooy bokkaale yàlla ak sa bopp bokkaale yàlla ak sa bopp yow bokkaale yàlla ak nit ñi mooy ngistal waaye bokkaale ak sa bopp nag waaw li nga defal yàlla yëg ci sa bopp waaw nee na nag loolu li ciy musul nit mooy nga ngay wax iyyaka na'budu te gëm ko iyyaka nasta'in te gëm ko iyyaka na'budu ku ko wax génn nga ci ngistal ndax yàlla yow dong dong la ñuy jàpp yow dong la ñuy jàpp loolu moom génn nga ci ngistal waaye boo ne iyyaka nasta'in te gëm ko mooy génn nga ci yéen sa bopp iyyaka nasta'in la hawla wala quwwata illa billah man aw ma pexe aw ma kattan mënuma dara yow rek lay dimbali ko li ma def lépp yow la ñaari baat yu am solo xam dañ koy jàng ci fatiye bi yàlla sax ñu di ko répété di ko répété te maanaa yi bari lool ñu mën a teg iyyaka na'budu mooy génn ci ngis sax iyyaka nasta'inu mooy génn ci naw sa bopp iyyaka nasta'inu mais nag dafa am ay sabab luy tax nit ki yéen boppam gis ki lu muy demee rek ba yàgg rek muy yéen boppam yan la muy réer yàlla réer yàlla mooy mooy mooy tax a yéen ndax réer yàlla mooy yàlla ni mu doyloo xani soxlawul daray kenn lenn kenn laa ma laa mustaxniyan an kulli ma siahu illa allah ku doyloo boppam soxlawul kenn dara mooy yàlla képp nga defal ko dara nag ba defal léegi loolu nga ko defal réer da nga war ko demal kon xamul yàlla waaye xamul sa bopp tam ndax boo xamoon sa bopp ni nga lompañee ak ni nga ñàkkee solo waaw ak li li nga war a defal yàlla ni mu toll ak li mu ci def ni mu tuutee li nga ko war a defal ni mu baree nga def ci tuuti di ko naw kon xamul sa bopp xamul yàlla xamul sa bopp nit ko xamul yàlla xamul boppam lu baree bari day day day naw boppam beneen ba ci mooy ja jay nit ñi di la jay lool nga am mbaax nii wala ngay jub jaamu yàlla ba nit ñi di la jay naan waa ji baax ji ñëpp jublu la di la ti nga xëy di la tag rek di la tag rek nga dem ba yàgg nga gis sa bopp ne ah ñu ne yowa yowa nga ne mën a nga dem ba yàgg nga ne mën a si wàll na yowa yowa rek nga ne mën a yow koy bàyyi nit ñi rek yoon yowa yow waaye boo ne mën a rek yàqu na wa kittu lil amdaahi wal itrai azhadu fi tanifi wal iqra même suñ tubaab si boppam nee na man mii xaw na maa dugg ci loolu xaw na ma cee dugg wax ji ma nit ñuy wax daan yawa yawa yawa yawa dem na ba bëgg a dox sama diggante jëf yu baax yii jàng ak jàngale jàng ak jàngale gis nga jàng ak jàngale ni mu amee solo suñ tubaab nee na xaw naa cee dugg ngir jaay nit ñi jaay géñ la jaay rek te ku ne yaa gën a xam sa bopp lu la nit ñuy wax yaa gën a xam sa bopp wa man yada yaqinahu limal wara yazunnuhu fiihi fa humrun suukara nee na ni ku ne yaa gën a xam sa bopp li la nit ñuy wax boo demee ba sukkandiku ci loolu bàyyi li nga xam ci sa bopp nee na ab dof la yow bu tëdd ci say nekk daa xam yow yaay kan léeg-léeg nit ñi wax xam nga dëgg la wala xam xam du dëgg kon boo ko demee ba sukkandikoo ko rek bàyyi li nga gëm nee na ab dof la kon gis nga yii sabab rëy réer réer yàlla réer ba amuk yàlla gi ak ñàkk gi ñàkk soxla kenn ak sa ñàkk gi yow ak sa gàttañ gi defuloo yàlla dara ak jay gi la nit ñuy jay ne la yow a yow a ba nga ne mën a yooyu yëpp day tax nit ki wéy day tax nit ki yéemu yéem boppam wala muy yéemu jëfam lan mooy saafara si nag mooy sëriñ bi moo ñu ko wax dawaahu ilmuka anna al amala li malik al anami jalla wa ala moo ne li li li saafara rëy googu mooy nga xam ne jëf moomoo ko jëf ji nga jëf moomoo ko yàllaa ko moom jëf ji nga jëf moomoo ko yàllaa ko moom wallahu xalaxakum wa ma taamaluun yàlla moo moom jëf ci wa annahu ma zala sa taqsiri fihi wala mu jibika naqiri nee na yow loo jëf-jëf lu mu bari bari rek jàppal ne ku gàttañ lu ma sa diggante sa borom ndax sa borom rëy gi rëy amuloo kattanu jaamu ko rëy na bu rëy àgg foo xam ne amuloo kattanu jaamu ko yow kon boo ko jaamoo wëroon naw jaamu gi nag ba tey defee nga lu bari loolu loolu fi wala mu jibika naqiri naqir lu tuuti la ci tàndama lu ñàkk solo rek nee na ba léegi rek defalu ko yàlla lu toll ni naqiir lu tuutee tuuti loo xam ne amul benn solo lu toll noonu rek defalu ko ko yàlla nga di ko naw wa anna man ala siwallaahi i'tamad anhu taxalla wa nawa wa tawaay yowma nag nee na koo xam ne sukkandiku wut sa jëf jàpp ne sa jëf ji moo lay musal nee na alku nga yàlla da lay da lay seetaan taxalla yàlla daf lay seetaan yàlla comme seetaan rek nga yàqu comme seetaan rek nga yàqu ak yoo mën a jëf bul seetaan rek nga yàqule mu ne laa yabbaxi lil abdi daawa azama xurabihi li rabbihi bi niama nee na yëyul ci ab jaam muy woote woo jaamu yàllaam yu rëy jaamu kese woote woote woo jaamu yàllaam yu rëy war na ko def de waaye waru koo woote wa rubbama ibadatun kathira qad afsadatha laxsatun xaqira nee na bari na nit jaamu yàlla jaamu yàlla gu bari julli yu bari di woor di asaka di sikar di wird di du ne jàng xasaay du ne mu def ko waaye benn bis bu def ko benn kuudóoy xool ko rek xool ah man kat nekk yàqu na jëf ji yëpp yàqu na yàlla amatu ci soxla rubbama ibadatun kasira qad afsadada laxsatun xasira kon loolu it mën nañ ko tënk ci li sëñ bi wax ci naw sa jëf moo tax boo demee ci masaalik ba tey mu ngi lay wax ne la yow daal nekkal nit koo xam ne ci diggante bi ngay nekk bay nal xaw fi war raja boo jëfee yàlla ragal ne yàlla nanguwu ko ay fu ma jëm yàlla nanguwut sama jëf ji de waaye nga def ba yàgg na ah yàlla da ko bari yërmande xam naa ne nangu na ko ci diggante boobu ngay nekk wa xalaat yi lii ba yàgg ci xalaat yi fal jamu bayna al xawfi wa rajaai xayru sajaayaaka bi lam tiraay boole boole yaa ragal ak yaakaar ragal na sa dara baaxul yaakaar na sa lépp baax na nga ne ci diggante bi loolu mooy jullit dëgg-dëgg jullit du ñàkk yaakaar complètement waaye du du naagu naagu defe ne mucc naa yàlla nga dégg koy wax ñun mucc nañ nangam nangam te loolu même ci mbir yi sax dana ci am ah man ñun mucc nañ ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi mucc nañ taalibe Sëriñ Tuubaa yi mucc nañ waaye ndax yow ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga bokk loolu moo doon sa itte sa itte mooy fekk fexeet ba bokk ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi loolu nga wax noonu ci sa làmmiñ ndax ci nga bokk loolu moo doon sa itti kon naw sa jëf moom it nekk na loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu tere la ñetteel ba mooy kiñaan ñetteelu jàngoro yi mooy añaan moom sëñ bi nag lan lay wax mooy daf lay balaa laa waxal dara ci añaan daf lay wax luy añaan ba nit ñi bari na lu ñu tuddee ak kiñaan du añaan bari na lu ñu ko tuddee wutit te moom la mu ne alxubbu zawali nicmatin an muhtadi huwa almusamma indahum bilxasadi daal bu bu doy waar bu gàtt ba am maana maanaam sa moroomum julit am ak xéewal nga am ci sa xol luy tax nga bëgg mu ñàkk xéewal boobu kii daal xéewal bii na ko ñàkk am na ñu bari ñoo xam ne ñaan man lu ma lay añaanee ndax li nga am am naa ko wala li nga am soxla wu ma ko ndax déedéet ka ñaan newut foofu ki am day añaan ki ñàkk day añaan ki am ak ki ñàkk ñëpp ay añaan nit ki da nga ko añaanee te ëppale ko lépp ndax doon nga bëgg mu ñàkk ba dikk di la laaj jubal nga di ko toroxal yaa ngi koy añaan la bëgg xay bis bu yàlla sàkk da ngay bëgg rek mu ñàkk li yor te yow yaa ngi yor lu dul jeex xam ne kon añaan ajuwul ci am ak ak ak ak ñàkk ci xol lay nekk waaw xubbu zawali ni'matin gis loolu de an muhtadi loolu mën na ci jëlee de maanaam ki ki am xéewal goo xam ne yàllaa ko ko jox tamit nit koo xam ne jaamu yàlla la nga bëgg mu ñàkk ko kon bu doon koo xam ne nag ab kàccoor la nag ab kàccoor bu yor alal di ca def lu bon da koy bëgg mu ñàkk ko loolu du ko ñaan loolu du ko ñaan kàccoor boo xam ne mooy kotu yàlla la la alal jëm yor lépp lu bon dong la cay def jullit bu ne sañoon nga mu ñàkk alal loolu loolu du ko ñaan waaye kii ko ñaan moom mooy kii doon jullitub yàlla di jaamurub yàlla yàlla tànn ko xéewal ko ci xéewalam yi yow nga ne da ngaa bëgg mu ñàkk xéwal googu na ko ñàkk rek donte daa amoo ko sax yow moo tax mu jikko joo xam ne ci ci nite rek bu ko yàlla tërawutoon nite rek da ko tere nite nit ku toog xool sa moroomam jullit moo xam ne lii bu ko ñàkkee doo ko am lu tax nga am ko de yow ñàkk di ko am gi ko am it wàññiwu la dara nga toog di xalaat na ko ñàkk di wax wala ngay jëf loo xam ne mooy tax nga ñàkk wa min sharri xaasidin isa xaasad yàlla dañ nee na day musu ci aji añaan su su jëfandikoo kañaan ga man a kañaan xam nañu ne kañaan bari na nit ñu ne ci ñoom ne ci seen xol waaye nag danañ forcer seen bopp bu duñ ko génne ci wax wala jëf juy tax loolee am man a kañaan gi bon mooy ngay wax wala ngay jëf lu tax nit ki ñàkk li yor ak nga ko yëmul ci bëgg sa xol rek waaye da ngay wax wala ngay jëf lu tax mu ñàkk ko waaw da ngay wax wala ngay jëf di def ay pexe lépp nga di ko def ngir rek ñàkk li yor képp wa min charri xaasidin isa xasad ndax xaasid xasad xaasid isa xasad añaan na ba noppi waaye isa xasad dafa jëfandikoo kañaan ganam ci wax wala ci ay jëf ci lu yàqal ka nga xam ne moom lay moom lay añaan yonent bi salaa sallam tere ñu ko lool ne iyaakum wal xasad iyaakum wal xasad wattandiku leen kiñaan fa inna alxasada yaakulu alxasanaat kama taakulu naaru alxatab nee na kiñaan day lekk jëf ju baax yow mi añaan sa jëf ju baax yi nga am soo añaanee nit sa jëf ju baax yooyu day lakk ni matt day lakk ni matt di lakkee ni mbo mbopp nga lakk ko dama dama koy lakkee sa jëf ju baax ñun noonu la ko kiñaan di lakkee xam ne amu ci dara waaye gisal li nga ciy ñàkk li nga ciy ñàkk te defoo dara sa xol rek nga yéenewut nit ki di yàlla fayee la ci loolu loo jëfati yàlla ne bëgguma soxlawu ma loo jëfati yàlla bëggu moo tax sëriñ bi si ma sàlli ko jinaan ba muy wax ngir digal ñu ñu di ko jàng nit ku ne mën koo jàng kuy door a tàmbali ak ku àgg yépp masal ko dinaan mën nga koo jàng sa njëriñ ngi mu ne waaye nag nazman nazman yarummu xaala kulli mubtadi wa xaala muntahin ida lam yaxsud dana waaye ngi yoo xam ne kuy door a tàmbalee ci yoonu yàlla mën nga koo jëriñoo ku dem ba àgg mën nga koo jëriñoo waaye nag soo añaanul soo añaanul ndax ndax ku añaan muy mel idil xasuudu laysa sa intifaai bi fadli man asar bi tibaay ndax ku añaan du jariñoo kim jamonoon koo jamonoon teel yàlla may ko xéewal xéewal yi doo ca jariñu ndax da ku ko añaanee sëñ Tuba loolu rek ko dalal li ëpp ci jamonoom ñi ko noonu woon noonu wuñ ko dara lu may kañaan kese mu ne nag ku añaanu ku añaan du jariñu ci kim jamonoon teel mu yor xéewal du ca jariñ dara aazana allahu min alxasuudi nag kon kon yàlla nañu yàlla musal ci kañaan wa kulli bu pedri mu si joxut kon loolu wane na ne kañaan lu lu lu lu lu lu bon la loo xam ne nit ki daf koo war di xeex di ko wattandiku bu baax a baax loo koy xeexee nag mooy loo koy saafaraal mooy bi ci njëkk mooy ar rida bil qadaai wal qadar nit day gëm yàlla gëm ne nit kii li am kenn mënu ko ko dul yàlla yow naka ngay xoolee nit yàlla may ko ngay bañ may bu yàlla boobu loolu wedd yàlla la ba tey nit kii kat li mu yor mënu ko boppam yàllaa ko may nga bañ may googu yow bañ mu am bañ mu am te yàlla moom loolu du tax mu ñàkk ko du tax mu xañ ko ko wa in yamsaska llaahu bi durrin fala kaashifa lahu illaa hu wa in yuridka bi xayrin fala raadda li fadlihi yàlla moom nee na bu mu la andilee musiba kenn mënta tee musiba ñëw ci yow waaye bu mu la andee aw yiw kenn mënta dox diggante ak yow ak yow faw nga am kon boo xamee loolu te gëm ko doo añaane kenn ndax da ngay xam ne mayu yàlla la te yàlla dese na lu bari boo ko ñaanee mën na laa may ni nga ko mayee mën na laa mayee noonu bu la añaane kenn loolu jikko la joo xam ne ci jamono tasaaro na lool ndax nit ñi dañuy foog ne kajaan moom day lu ñuy làmb di ko daj nii mais ay ay mandarga lay am ci nit ñi ay nit ñuy jëf wala ñuy wax ay wax yoo xam ne waxi kañaan la boo ko gisee waxi kañaan la Sëñ Tuubaa nee na nañuy muslu ci kañaan al istiaazatu minhu wa min sharri xaasidin isaa sa ci la bokk xul aus bi rabbil falaq nga koy faral di jàng te gëm ko yàlla dana la musal ci kañaan xul aus bi rabbil falaq ba ca min sharri xaasidin isaa xasad yàlla dana la ci musal Sëñ Tuubaa ne wa kun muidan ma nga ca si biir wala shifa yi wala waaw wa kun muidan lana min sharri di xasadin ma sharri fammin wa sharri layni yàlla si biir nag yàlla yàlla ñu musal ci ayu ko ñaan xam nga sëñ Tuubaa lu mu tudd rek booy ba nga wattali ko róy la yu ndaw ndawaan yi jëralu ko tudd yu ndaw ndawaan yi jëralu ko tudd bu tuddee loolu rek lu róy la mooy kañaan tudd na ko ca masalit tudd na ko ci silli bi tudd na ko feneen feneen foo bari ci ay waxam da ciy tudd da ciy muslu ci kañaan moo tax ñu ñëpp mos ci musu kon kuy jàng xasida googu tam yàlla la mën naa musul ci kañaan kuy jàng xolos loolu falax wala ngay jàng silli bi yàlla mën na laa musul ci kañaan bokk na ci la la cay musal mooy ngay ngay faral di jàng nag liñ ci wax ci lu bon bañ gi ko yàlla bañ ak tëgg gi ci dëkk ñu koy def liñ ci wax ci alquran wax ko ci sunna borom ko xam yi di ko waxtaanee loolu lépp nga di ko diglu ba xam ñàng gi ñàng ak garaaw gi mu garaaw dana tax nga wattali ko kon yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne mën nga ko jëfandikoo ngir wattu kañaan sëñ bi boole ca ne bokk na ci liy saafara kañaan mooy nga bañ ko da nga koy bañ jikko ji la nga am muy kañaan da nga koy bañ ni nga bañee sa jikko yu bon yëpp bañ ko wa daawi xeqdaka bi kurihi kama takrahu tabaka alqabiha sanam saxdam bañ ko nit bu yoree jikko ju bon mën na ko yor yàlla na toog ko mais na ko bañ di liggéey ko mu deñ da koy bañ te del ñaanal tam ki nga añaan del toog julli ba noppi yàlla xam na ne diw mii day man li mu yor yéenewuma ko may muslu ca loola waaye may ma di ko ñaanal ma ne ma forcé rek ñaanal ko wan ulahu ansaari xay bi bisaari xay bi abada wan wi lahu sala wan wi lahu ayda aydan salaaxan laa rada yéene ko aw yiw rek te bañ ko yéene musiba te di ko ñaanal foo toll ñaanal googu nga koy ñaanal yow sa bopp ngay defar ñaanal googu ngay ñaanal bokk na ci yi saafara li ne ci sa xol bokk na ci waaw mu ne mu ne nga xam ne it ki bañ li yàlla def li yàlla bëgg yàlla def ko bañ ko nee na yàlla ci boppam la bañ daanaka kooku yàlla lay gaaral yàlla lay contre yàlla def na ne li mu def bëgguma ko kon waxoo kooku sax waaye yàlla ngay waxal léegi ndax yàlla moo ko def waaw te nag foo toll nag ci naqar ngay dund ngay dee ndax li nga bëgg yàlla du ko def mukk wala bu ko defee yow taxoo mu def nit ki bu amee ñàkk yow mii bu yéene goo ko génne yéene ñàkk taxut mu ñàkk yeneen sabab la moo ko tax a ñàkk waaye du sa yéene ji ndax bu doon loolu rek nga am kon nga yéene sa bopp am mu ne fa saara xalbuhu aliman mukk mi daal foo toll rek yaa ngi ci naqar ndax ki nga ki ngay añaane foo toll gis ko mu yéene xéewal ko foo toll gis ko muy xéwal te yow xéwal yi moom rek la naqari kooku ci ci ci ci ci jaqar ngay dëkk ci naqar ngay dëkk am na ñoo xam ne am nañ loolu ci àdduna waaye duñ tëdd nelaw ndax li diw am duñ tëdd nelaw ndax li diw am oto diw baag kër ak diw baag nangam li nangam baag loolu lépp tam mën a am am nañ ko waaye bu ñu ko amee ba daf bëgg duñ bëgg kooku ñàkk ko moo leen tee nelaw kon loolu loolu jikko ju sew la joo xam ne dama li ma wax ne léegi ne bu bu ko yàlla tërewutoon wallahi nitu nitu kese rek war na ko bañ ak nit rek nit képp war naa bañ lool nite waaw nee na ku yàlla may màggal ko may ko xéewalam màggalal ko te bàyyee ko xéewalam bal aziman man il ilahu athara bi fadlihi wajtani bil munaka màggalal rek te bàyyi kon gis nañ ko kañaan lim ñi nga xam ne ñu ngi tasaaroo ci jamono nga xam ne bari na ay jafe-jafe yoo xam ne am na ci ci àdduna ay jafe-jafe ci àdduna ci diggante nit ñi ci diggante mbokk yi ci diggante politiciens yi ci diggante commerçant yi daara waral ko lu mooy kañaan kañaan doo nga ko waral lu ci bari duñ ko xam nag waaye buñ gëstoo tuuti rek danañ gis ne kañaan moo ko waral ñu war ko waxtaanee bu baax a baax a baax a baax di ci muslu bu baax di ko muslu di jàng lañ ca wax lañ cay wax lépp nga di ko diglu di ko jëfee tey ñaanal ka nga xam ne moom nga ñaan yàlla musal la ci moom. bi ci des ñeenteel bi mooy njistal wax nañ kibr oj bu xasad njistal nag moo ci mujj moom it nag jàngoro ju bon a bon la ndax moom day mabbu njistal moom du tabax dara day mabbu rek loo tabax rek mu mabbu. loolu tabax rek bu mabbu nga ne ko luñ gisal mu ne amma riyaahu fa huwa an yasa al fata li qasdi taazimi l wara in sabata mooy ngay jëf jëf joo xam ne yàllaa tax ñu war koo jëf nga di ko jëf ngir nit ñi ngir nit ñi nit ñee tax nga di ko jëf da ngay julli bëgg nit ñi nit ñi da ngay julli da ngay woor nit ñi bëgg na da ngay woor da ngay dem màkk nit ñi bëgg na dem màkk moo ci gën a bari nag moom moom daal rek ñuy dem màkk ñëpp dañoo bëgg ñu ne alaaji loolu la ci loolu la ci jub mais ku def loolu rek yaa ngi ngistal mooy boole yàlla ak leneen jaamu yàlla bii nga boole ci yàlla ak keneen yàlla ak keneen kenn du ko boole wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan nee na ku ku yaakaar sa borom ku yaakaar a dajeeg sa borom ëllëg na ngay jëf jëf ju baax ba noppi wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada te bu sa boole kenn ak yàlla yàlla rek wala ngay jëf jëf ju baax ngir jañ jañ jañ dara jañ xëcc lor wala jañ jañu ay am na ñoo xam ne seen jaamu yàlla dañuy xërëm la ñuy jaamu maanaam seeni soxla la ñuy jaamu man dama julli suba ndax mu mucc ci bés bi ma julli gee ndax mu mucc ci guddi gi loolu jaamatoo yàlla jaamatoo mucc ngay jaamu lor jooju nga ragal moo tax ngay julli wala waa beneen bay dum ko tënkee nga xam ne mooy gisal dëgg-dëgg moom wa man yakun lil xalqi zaltifaati fi sa'yihi fa bi riya'in aati képp koo xam ne yaa ngi jaamu yàlla di ca geesu kenn kenn ku dul yàlla yaa ngi gisal di jaamu yàlla geesu ci kenn ku dul yàlla rek ne nga ne yaa ngi yaa ngi gisal nga ne ko waaw naam wala xalaat donte na da ngaa wéet ci sa biirum néeg nit dana toog ci biirum néegam gisal kenn gis ko muy gisal ndax day gëm ne toog gi mu toog ci biir néeg bi di julli wala muy koor boo demee nit ñi ñu ngi koy gis daan kii de ku baax la moom ne day fanaane julli moom ne day fanaane nangam moom ne day fanaane nangam moom ñu ngi yëg loolu kon mi ngi gisal te moom kaf bi rek nga gis keneen koo xam ne moom ma nga ci digg penc ba marché ba di julli wala muy woor wala muy def dara waaye ma ngay sellal bu baax na yëgut ñu ne ci gannaaw yëgut kenn ku ne ci gannaaw suñu tubaab loolu moo ko daloon maanaam li muy def ci biir nit ñi ak ci biti nit ñi xamewu ko nit ñi bari ak nit ñi tuuti xamewu ko ndax bu xasee taxaw ci kanam boroomam moom gisatul leneen lu dul boroom gisatul leneen lu dul boroom nga xam ne kon nit ki mën ngaa mën naa njësal ba noppi nekk moom képp waaye mën naa sellal nekk nit ñëpp mën naa sellal nekk nit nit ñëpp waaw ndax li kaw ni fii fii qalbihi kal aadami nee na nit ñi ci xolam moom mii ne ci biir nit ñi di jaamu yàlla nit ñi ci xolam daa mel ni amuñu nit ñi amuñu amuñu kenn niw fi moom rek bi nekk kooku mooy ku sellal dëgg dëgg dëgg nga xam ne kon nekkut ci nit ñi di la gis wala ñu ñi bañ laa gis rek waaye ngistal mën na am ci yaay yëpp waaw nga ne ko yan mooy façon ngistal yi nga xam ne moo garaaw nag mu ne am na ñoo xam ne seen ngistal ci jaamu yàlla la leen jëmee bëgg a jege bëgg a jege yàlla bëgg a jege yàlla man damay jaamu yàlla ngir bëgg a jege yàlla man am ay xar baax wala ma am ay kiimaan wala ma am ay ma am turu yàlla am na gone yoo xam ne ci loolu la ñuy rey seen dund bis bu set ñu ngi gër dund nag ngir rek ndax dama bëgg a am turu yàlla turu yàlla loo koy doyee jaamu yàlla turu yàlla doyoo ko dara lu muy jaamu yàlla waaye fekkee da ngaa doon turu yàlla ngir di ci dur mars waaw loolu rek tax nga bëgg sa jaamu turu yàlla kooku léegi jaamootoo yàlla léegi sa bopp ngay jaamu te am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy sonlee seen bopp bisu yàlla sax képp bis bu set ci la ñuy sonal seen bopp wala ngay jaamu yàlla ngir bëgg nit ñi màggal la nit ñi bëgg màggal la kii di ah kii di moom ragal yàlla nangam nangam kaalaam gii mu rayam gii nangam ak nangam moom foo ko fekk nii nangam nangam nga xam loolu nga bëgg ci sa xol yow loolu daf laa neex wax li ñuy wax loolu daf laa neex yaa ngi gisal wala yàlla xaral la ay baax waaw am na ñoo xam ne dañuy fanaanee lu ne dañ ko fanaanee def ngir yàlla wan leen rek ñu am xar baax wan ko nit ñi ñu gën leen ñooñu jaamatuñu yàlla loolu la ñuy jaam xar baax wala nga bëgg ñu yëg la nit ñi faale la nit ñi faale la nga xëy sa jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla da nga xam ne nit ñi ku bëgg jaamu yàlla lañ ku bëgg kuy jaamu yàlla lañ ngay jaamu yàlla ngir bëgg ñu bëgg la xëy loolu rek moo tax ngay jaamu yàlla dem na ba ak ci sëñ bi day mel ni sëñ bi jamono rek la xam daa ñëw ci jamono di ko misaal wa minhu itraaqun ma al xushuui inda liqaa'ihim bila xudui am na ñoo xam ne boo leen gisee ci biir nit ñi dañuy mel ni ay petax muuru di dox ndànk di xool ndànk di temp ndànk sat ñi sari kefee na ci seen biir dara la gëm nit ñi lañuy kii nii rek ci kaw nit ñi rek waaye gëmuñu dara te loolu yëpp gis nañu ci jamono parce que ragal yàlla du du ci jëmm ci xol la ragal yàlla bu ci jëmm ci xol la kon gis nga yii ak yu ma waxut nga xëy day mel ni jamono jii Sëñ Tuubaa dafa ñëwoon di melal jamono ni mel lii ñun ñëpp gis nañ ko kenn ku ne am nga koo xam wala ñoo xam ñoo xam ne nii luy mel lii moo leen tax di jaamu yàlla la am solo nag mooy nga fexe ba bu ca bokk yow bu lu bokk ci ñoom bu wala boo leen gisee bu nga nax ca loola waaw Sëñ Tuubaa am na nee na boo gisoon nit kuy dox ci kaw ndox mi wala muy naan sawara bu ko gëm te fekk ko mu ne ci istiqaama na na coow ci yoon wi rek waaye leneen lu mu mën a def jinne mën na ko seytaane mën na ko iblis mën na ko xar baax boo def rek seytaane mën na ko am na benn téere bu ñuy benn borom xam moo ko liggéey mu ne alfarqu bayna awliyaa illah wa awliyaa sheytaan teq li teqale diggante waliyu yàlla ak waliyu seytaane waliyu seytaane la leen teqale du dara lu may kii day jaar ci yoon wi li yàlla digle mu di ko def li yàlla tere mu di ko bàyyi lu mu feeñal karaama la kooku lu mu feeñal karaama la mayu yàlla bu mu ko bàyyi waaye ka ca des lu mu feeñal day mel ni la koy feeñal waaye ak njaayal la yàlla da koy jaay rek amul dara kon yooyu yooyu gis nga gisal kon ni mu sewee nit ki daf koy def ci jaamu yàlla di ko def ci xam-xam di ko def ci wax di ko def ci jëf lu ne rek mën nañ si jaa gisal lu nekk rek mën nañ si jaa mën nañ si jaa gisal ne sëñ bi nee na am na ñoo xam ne dañuy gisal ba dañuy bàyyi sax jëf joo xam ne am na njariñ ngir bëgg jàpp ne bu ñu ko defee nit ñi dañuy jàpp ne ñi duñ nitu yàlla jëf joo xam ne am na njariñ assaa yu leen ifaat seen ibaad jëf ju am njariñ lool wañu dara yàlla araabu ko defu ko dara nga di ko bayow ba woo ko ngir jomb ba woo ko ngir wat watandi ko waaye da koy baax ngir nit ñi xam ne yaa ngi defe ne yaa ngi yaa ngi yaral nitu yàlla nga doo def yii nitu yàlla nga yow doo def yii waaw te loolu wañu dara dañoo xam ne duñ liggéey ndax loolu loolu ko waral da jàpp nañu liggéey bi damaa jomb wala liggéey bi daa jomb kee wala daa kee ko war a def wala kii ko war a def nangam ak nangam dara te yooyu rek ko waral waaw ba ci sax boo xa maanaam nag gisal boo xëy nag moom ñi ci bu ci bëriwul ndax loolu la ñun ñëpp ko bëgg wa shukru listizaar maanaam ngay sant yàlla ngir bëgg mu dolli la te ñu ne ci gisal la ba ko te la la in shakartum la azidannakum waaye daraja la si sëñ bi waxee si sëñ bi waxee daraja la ay ay ay ay ay ay daraja la yoo xam ne nit day àgg foofu nit day àgg ci jaamootud yàlla ah santatud yàlla ngir yàlla dolli ko waaye day sant yàlla ngir xam ne yàlla defal na ko lu mu ko munta fay ba mu ko defalagul dara la ko defal dara yàlla ba mu la defalagul dara genn xéewal li judd rek ànd ak sa bopp ak sa tànk ak say loxo rek xéewal googu mun a xéewal kañ nga ko koy fay boo sa boolee nag mu xéewal la nag nga di ko sant defe ne dalaa war a do dalaa war a dolli ci cant googu yow cant gi daa war a jëm ci li la yàlla defal ci fayoo googu waaye wër sa jëm ci li nga ko defal yow jàpp bëgg ci ak cant loolu loolu loolu la war a déggee maanaam am na ñoo xam ne bu ñu déggee wax jooju dañaan ah mais yàlla moo ne la in shakartum la azidannakum su ngeen santee ma dolli la ak kon sant ñu dolli la ak ngi sal la waaw ngi sal la parce que bu fekkee moom nga jiital nga xam ne dolliku ko rek moo la tax di sant yow da nga bëgg a dolliku rek moo tax ngay sant waaye santu bi yàlla te yàlla liñ ko war a santee bu la dugalagul dara it dafa bari tànk yeeg loxo yeeg bakkan yeeg nopp yeeg lépp waaw bu bu la laajoon fay googu rek ne la kaay bala nga maa defal dara wala defal nga ma dara bala nga maa laaj ma dolli la kaay fay ma lii ba noppi yii ma la defal yii nga xam ne moom defal ko dara dama la ko defal rek kaay fay man li ma la ci defal ba noppi ñu doon ci wax kon gis nga kon ngistal lu lu lu sew la lu sew la te amul jenn jëf ju muy dugg te yàqu ko loo mën a def ci àdduna lu mu rëy rëy rëy ak lu mu baax baax baax bis boo ngistalee rek mooy boo ngistalee mooy boo ca boolee keneen ku dul yàlla rek yàqu na loolu nag bokkut ak léegi am na ñoo xam ne dañuy defe ne def dara ngir yàlla am leneen loo ca dugalale ca biir ngistal la déedéet mais da ngay jiital yàlla loolu bëgg da ngay jiital yàlla bul jiital loola dem makka dañ koy def ngir yàlla walilahi alnas xajul bayt waaye yàlla moo dagan ne bu ngeen demee makka kat bu ngeen defee seen war-war ba noppi mën ngeen a jaayaale mën ngeen a jëndaane xam nga kon yaa ngi jaay yaa ngi jënd ci biir aj makka waaye dagan na ndax yàlla moo la ko may ndax da ngaa jiital yàlla kon jëpp jëf joo xam ne jiital nga ko yàlla leneen loo ca am leneen loo ca am rek nga ne lal yàlla la bu fekk la ca lool waaye yow jiitalal yàlla ci li ngay def bul jiital lii nga ci amee dolli ko googu bu ko jiital ci sa cant waaw dolli ko googu bu ko jiital ci sa cant jiital sant yàlla ngir war koo sant boo noppee nag lu lu mu ca teg nag moom dimbalee la ko loola moom gën a lëm la mu mu dimbalee la ko waaw gis nga ngistal ni mu bone bi suñu borom te wax ci ci ci alxuraan dafa dafa tudd ab jullikat ne ab jullikat a ngi nii bu alku ab jullikat bu alku ñu mooy kan mu ne fa waylun lil musallin fa waylun lil musallin alkan ñaan ne jullikat bii wala jullikat yii ñu ne ko mooy ñan alladina hum an salatihim saahuun ñoo xam ne bu ñuy julli seenum xel nga ca Amérique ma nga ca France ma nga ca fu ne seenum xel nga fa waaye yëmu ca mu ne alladina hum yuraawna li ñuy def lépp it defuñ ko ngir yàlla waaye dañ koy def ngir nit ñi dañ koy def ngir nit ñi kat kon gis nga jullikat bu alku noonu qad aflaxa almuminuun alladina hum fi salaatin xaashiuun loolu lañ xam ab jullit day julli ngir texe da cay jële texe loolu la yàlla wax ñi texe mooy ñi nga xam ne dañuy julli tey ragal teewlu ci seen julli ñuy teewlu safaan ba nag mooy ñuy julli tey ngistal ñoo ñoom yàlla wa fa waylun rek la ca wax fa waylun li musallin waaw nee na am na ñoo xam ne seenu ngistal fi ñu koy xamee mooy buñ jógee jëm ci yàlla jaamu yàlla day mel ni daal aada la ci ñoom ñun suñuy jaamu yàlla li ci ëpp léegi mooy aada lañ ko jàppee julli yeeg woor yeeg lu ci bari aada la daal fekk nañ maam yi di ko def ak bàyyi yi ñu di ko def day mel sax sañuñ ko bañ a def ndax bu ñu ko deful dañuy yàqu ci société bi waaye nee na ñooñu ñooñu lu lay xamal ñooñu mooy ida qaamu ila salaati qaamu kusaala nee na dañuy tayal lool fay naa julli te génn ci mën naa julli ci génn ci ndax julli gi dafa lay tiitloo ñàkk gi nga ko ñàkk def tiitloo wu la ngir mooy yàlla gi waaye lim la tiitloo mooy occupé gi mu lay occupé ba amoo jot féexoo féexoo ba mën a def leen nga bëgg a féex rek ñu defe leen mu ne qaamu kusaala yuraa'uuna annaasa wala yazkuruuna allaha illa qalila seen julli googu dara lañ ci gëmul ñu ci tudd yàlla fàttaliku ci yàlla benn yoon yonent bi dem ba ba ba yamale ko ak ak bokkaale yo njaal ngistal yonent bi dem na ba ne mooy bokkaale gu ndaw bokkaale dafa am ñaari bokkaale bokkaale gu mag mooy weddi yàlla complètement bokkaale gu ndaw mooy yii jëf yooyu ngay jëf di ci boole keneen mu ne bokkaale gu ndaw la inna axwafa ma axaafu aleykum ashirkul asxar ne li ma gën a ragal ci yéen sama gannaaw mooy bokkaale bu ndaw bokkaale bu ndaw laa gën a ragal ci yéen sama gannaaw ñu ne ko lan mooy sirkul asfar mu ne ar riya mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy njësal mooy njësal gadu ko mu ne la sunu borom tabaraka wa taala bu yowmal qiyaamee buy fay nit ñi nee na day woo ñu doon njësal nee na ñu taxaw leen fee ñu taxaw fële mooy lan yéen a ngi nii mu ne waaw jëf ngeen di jëf ngeen ko ku ku taxaw ngeen di ko jëf te foofa weddi du fa mën a am weddi du fa mën a am de yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu ya'maluun sa tànk yeeg sa loxo yi boo weddee ñu wax boo weddee tànk yeey wax bët yi wax nopp yi wax kenn ku ne la nga defoon nga wax yàlla leen ñee taxoon ngeen di jëf kon mooy dem leen ca ña taxoon ngeen di jëf ñu fay leen man yoreelu ma leen dara jeexal naa ci gis nga gisal ni mu réyee ak ni mu fooree ku dem ba yomal xiyaam la nga jëf ci lu baax lépp nit fokk ko sànni la ko ne la demal ca keneen fay sa kale ka kañ la na la fay yurub dara moom boppam la tal boppam la tal moom yurub dara ama riyaau fa huwa shirkun asxaru saaxibuhu fi abadin musaxaru dinañ ñi sal bokkaale gu ndaw la kum ne ci yow foo toll yàlla da lay toroxal ñuy tuutal ngay doon ku torox ngay doon kuy bokkale yàlla ndax laa yanfau l ilm wala al ibada wala yanfau l ilm wala al amalu ma riyan fa man xawaahu fa durra jama nee na xam-xam li muy baax baax ak jëfe ko la muy baax baax duñu am njariñ bu ànd ak ngi sal duñu am njariñ bu ànd ak ngi sal wa man xawaahu ku leen làq ñoom ñooñu fa durra jama boole nga lor yépp ku leen boole rek nee na boole nga lor yépp yépp yépp yépp waaw ndax la in asharta la yaxbatan amaluk soo bokkaale rek si jëf yàqu na sa boo bokkaale yàlla rek jëf ji moom yàqu na laa taqsidanna xayra rabbi tuuli fi kulli saayin ma ab kulli xaw nee na bul jublu kenn ku dul yàlla ci sa jëpp jëf ak sa jëpp wax bu ci jublu keneen ku dul yàlla jublu ci yàlla rek kat wa ma umiru illa li yacbudu llaha muxlisina lahu diina xunafa jaamu leen yàlla te sellal jaamu yàlla waxut jaamu leen yàlla rek de waaye jaamu leen ko te sellal ko ndax sellal ko mooy tax mu moom ko boo ko sellul rek yàlla moom kon loolu mooy ngistal mu bari ay xeet nag waxoon nañ ko sax xeet yi waxoon nañ ko li koy saafara mu ne liy saafara ngistal mooy nga xam ne an taalama an biyadihi kullul umuri bi zaman nga xam ne mbir yépp ci loxol yàlla la nekk kenn moomul dara kenn amul dara yàlla rek am wal xalqu laa yanfau nafsahu layaat fa kayfa gayruhu idan min al ibaad nit ñi nga xam ne ñoo la tax di def mënu ñoo jariñ seen bopp dara ba mun la jariñ dara dara yow ku mënta jariñ boppam dara waaw ku mënta bopp jariñ boppam dara na nga ko waxee ca ca ca xasida ga kii xaaloolu yarkan فقلت ربي حسبي واكتفت بالاسرار قلب الدين وكيف ارجو ولا ولا ولا ابي سوى ملكي لانه جل يغنيني ويرجيني man du ma du ma def dara ngir kenn ndax yàlla képp laa yaakaar la yàlla képp laa doyloo yàlla képp laa yaakaar yàlla képp laa doyloo kon nit ñi duñ jariñ duñ jariñ seen bopp dara ku dul jariñ boppam dara nu mu lay mën a jariñee yow sa bopp ku dul jariñ jariñ sa bopp nu mu lay war a jariñee mu ne summa waidullahi fii fiihima yaa saaxi shaddadahu rahman bi tudaahi déggital ak ak ngistal nee na boo jàngee li ci alquran wax da koo taral da koo mettil dam cay fay borom mu daal mu jox ñu misaal ne ñu misaal nañ kuy ngistal kuy ngistal nañ ko mën a misaalee mooy koo xam ne dafa dafa yor marchandise moo xam ne mu cher la mu mën koo jaay ci ay milliers de milliers ay junni yu bari mu mën ko cee jaay nga xam ne boo ko jaayee ñu jëpp la ci lu bare bare bare bari nee na nga jaay ko ci ab fifteen borom xel dana def lool marchandise moo xam ne mën nañ la caa fay ay junni nee na nga def jaay ko ab fifteen mooy marchandise um yàlla nga jaay ko yàlla mu fay la ci ay junni nga jaay ko mbindeef mu fay la ci fifteen dara la du fay sax dara la du fay mënoon nga caa amit wa billadi amkanahu rida alqadir bi saayihi faxtaara ridwan alqadir loolu gaaw dén jëf ji mënoon nga cee am ngërëmal yàlla mi qadir waaye nag faxtaara ridwan alqadir yow nga tànn ngërëmal ma ngindéef bu ñàkk nii yàlla mi am lu ne ne la kaay ma jënd nga dem ci mbindeef ne amul dara mu jënd ci yow mu jënd ci yow mu ne waaye loolu nag bu amee ba noppi fa kayfa in abqadahu alfaqiru min badi ma faqitahu alqadiru mbindeef moom nga yaakaar nag boo demee ba mu toroxal dara ni la umu dara nag nga dikk fekk yàlla yi mere la mbindeef ma nga yaakaaroon amul dara gis boo bu ëllëgee boo na ko fay ne jurul dara lu la fayee ndax mënta mënta musal boppam kon kooku merloon na la waaye gannaaw boo meree ba noppi nag wëlbatiku wël dem ci yàlla nag mu ne ah loolu sama yoon moom nga doon defal amul lu la fayee man defaloo moom dara fa kayfa in abqadahu alfaqiru min badi ma saxatu lamma dara bi annahu laa yaamalu illa li ajlihi fa daa al amalu jëf yooyu yëpp sànq waaw jëf yi yépp yépp sànq ci maasila kon gis nañ ne yii ay mbir la yoo xam ne dafay nuru yu yu yu yu ndaw waaye mboolem jafe-jafe yi am ci suñ société bii ci suñ diggante ak suñu borom ak suñ diggante ak suñu yàlla jàngoroy xol yi moo ko indi suñ diggante ak suñu borom ak diggante yàlla jàngoroy xol yi moo ko indi muy rëy ak naw sa jëf ak fiñaan ak ngistal ñeenti jàngoro yoo xam ne xol moo koy def saa bu nekkee ci xol kam nekk ci xolam war naa xam ne moom feebar na daa war a faju ji feebar na daf daa daa war a faju ji te néew na néewaani ci jamono ji koo xam ne laalu ci benn wala mu laal ci dara néewal li ci ëpp nag dañu ko nangu la ma waxoon ci gannaaw dañuy bañ ne moom dara yóbbu leen ñoom foofu féewal ñu waaye néew na koo xam ne ñeenti jàngoro yi set nga ci wecc te ku ci setul wecc doo mucc mukk ci àdduna illa man ata allaha bi qalbin salim yàlla xal bu salim la bëgg xal bu mucc ci feebar yii yii ñu tudd rëy yéem sa bopp kiñaan ngistal kon ñëpp dañ góorgóorlu ci loolu liggéey ci liggéey bu rëy te liggéey ba rek yàlla noppal nañu ci ndax kii sunu yaakaar taalifal nañu téere yoo xam ne li mu wax ci loolu keneen wax ko ci li mu wax ci jàngoro yii fu ne fu ne fu ne fu mu bind fu ne fu mu bind fu ne ba ca téere xasida yi sax xasida yi nga xam ne dañ koy jàng sax ngir jàng ni si kar ak yooyu rek yooyu sax looloo ko ci da cee wax lool dénkaane yi da cee wax lool fu mu toll jàngoro yii mën naa wattandiku leen ko wattandiku leen ko ndax moom day defar te koy defar looy defar xol te xol kenn mënu koo defar te lii ne ca kenn mënu ta defar xol te lii ne ca da ngay sonn rek mën ngaa bari jaamu yàlla lool mën ngaa bari julli mën ngaa bari woor mën nga lu ne mën nga ko bari waaye ginnaaw soxla gi ci mooy da ngaa yor ndab lu taq ndab lu taq na ku ko yor kenn du ca def ñam ñamu sel wala bu ko ci defee kenn du ko jël asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu